dara tàgguwuma. waaw su ma la génne sama appareil bi 45 appels ngay gis dans le mois man toujours dañuy wootante Ablaye du du dem fenn du def lenn te tàgguwuma yàlla dimbali na ma am naa xel fi ma koy orienté xam naa ko Ablaye ak Macky Sall dara jotalewu leen Ablaye moo ñëw bëgg Macky Sall ñu reyante ji ba mu ñëw Macky Sall keroog ba mu ba mu gañee réew mi ba mu ko wooyee ni ko loo bëgg ma def la def ma ne bu ma def dara saraka laa yàlla àtte na man Marème mii maag moom jàngandoo ba ba ni mu toll nii sama taaw moom mii laa ko tuddee man kër gi ci laa bokk. am naa sama liggéey it bul ma faral man ñem man batan laa ñeme naa ñefe su ma am su ma gagné sa marché ma liggéey su ma waree am lu may lu ma leen di jàppale wala ma jàppale leen. giñ naa ci yàlla loolu mu woo ma ni ma papa mm, président woo na ma waaye jëluma benn poste mu ma sax ñun ñëpp duñ jël poste nañ ko jàppale waaw ma ko wax ko yaayam. ñuy dem di dem di dem di dem ba eh, eh, seytaane rek ñoo leen boole Ablaye Sylla bu yoree bu yoree entreprise gagné marché am ñu lijjanti ba jël marché ba jox ko keneen mu dem justice ñu nangu marché ba delloo ko Ablaye la ñu nanguwaat ko ci Ablaye Sylla delloo ko waa ji Ablaye Sylla am na am na marché yu bari yoo xam ni état bi dañ ko ci ameel xaalis day ñëw liggéey xaalisam ñu war koo fay duñ ko fay dara. ba bëgg a daane société ba ah alors Ablaye Sylla geddul de dawul dem fee itam dafa ne xam ne comme que fii mënu ni ni ñu koy def ni mënu fee de mu dem Amérique toog ak jabaram ak mu ngi liggéey Ablaye Sylla mu ngi li mu yor entreprise multinationale la ñoom bu ñu ko keppee fii moom am na fu muy dundee. li Ecotra mooy entreprise boo nga xam te ne màggal Touba fépp fu am ndox si Touba ngay gis ñuy sonn 24 heures sur 24 ñoom également ñooy nekk. Euh, bu di ko sëñ Tuubaa foofu mooy seen base bu dañuy ñëw 15 jours avant liggéey dëkk bi yëpp ba mu set delluwaat. duñ ko jox essence. duñ ko duñ ko jox lekk lépp lay dajale ba mu mët ak per diem bi muy fay chauffeur yeeg ñi doon liggéey yëpp indi mbandu essence am ci lay duy ci lay liggéey ci lay dellu. moom taalu bi la day jaayanteeg Serigne Touba sëñ gis nga ñi sëñ sëñ Sidi Motaar mi ñi jara jaayanteel. moom nee na ma man papa booy bara nga toog. giñ naa ci yàlla duma ma torox ndax xam naa li ma liggéey te xam naa ñi ma ko liggéeyal. loolu doy na jarul Macky Sall Macky Sall nag bu fekkente ni moom nax nañ ko ba mu dugg ci ay carcan yooyu jàpp booy bi di ko téye di ko xeex ak naan booy bi dafa ambitieux lan la ambitieux ah téye mais on lui doit des des am na boo xam ne bii sax am na lu ma mënul wax jale bi mais moom waroon waroon waroon na maa ngi ñaan na ma woo rek. man ragaluma ko de. barke Serigne Touba ragaluma mag Sall duma ko tooñ nag naa ko jox cëram président la waaye naa ko wax dëgg koo xam ne gi moom lii waru ko woon a def yaramam waroon naa daw te man ak moom ànd nañu ànd nañu ñëpp xam naa li ci biir yëpp li sama doom doon def yëpp xam naa ko ndax daf may tàggu papa nee nañ ma abal leen nangam papa nee ma def nangam mënoon naa ko ne bañal.

ñëpp jàkkaarloo na ak ñoom xam naa ci lu bare bare bare. en tant que directeur Ecotra moo leen jàppale ay ministre. oui bu ko nee moom campagne mu Macky teyu ko woon daan joxe rek. waaye ñun xaalis xaalis boobu ñoom ñoom ñoo ko joxoon ñoom ñoo ko jàppalee nag dafa war a investir rek. parce que Serigne Saliou ko ko. fu ñu koy ko ay marché bu mu gagné wala. mosuñu gagné marché état. Hmm. jamais de la vie. du yaa ngi may dégg rajo kon nañ ma tontu. mom def noonu Macky Sall bàyyi Ablaye était tellement équipé ba nga xam ne marché bu mu compétir ben seen ñaar da koy gagner matériel bi mu am fi amul il a un matériel de 80 milliards bo demone fo bu gis engins yi amul presse dans la sous-région mom dafa demone outil ay affaire ba nga xam ku togg ding ko sóoraale. mais ces activités quand même continuent ci biir Sénégal dans la sous-région. Ah, mënul dem parce que actuellement actuellement ça fait 5 6 mois yo xam ne ñu fay agents yi parce qu'on lui doit des milliards. mu ngi seet léeg-léeg mu arrêté liggéey yi léeg-léeg mu perturbé nañu liggéeyam ci dul dara. baatu daanu moom dafa ah, non moom nee ma du mu daanu ndax ñi fee ñi ne fii ñooy daanu ñi mu engagé bi 800 personnes da da jël Ablaye paye paye 450 million par mois de salaire directeur yi mu amoon ingénieur bu mu fay ba amul 4 millions am nga 5 millions wala 7 millions loolu fu mu sa am moom du doon jàppale nit ñi rek ils étaient 800 personnes bu ñu ko yàqee ñoo xam. am Ablaye tedd na mu yàgg yàlla dimbale na ko tey dañuy sonn rek ñoom ñi ko doon yi xuloog di liggéey ak di ci dugg yëpp dañ sonn Macky Sall bu bu fayul goos bi <laughs> baax parce que Serigne Touba bu fayul goos bi yàlla baax na. état état la ëllëg mi ngi fi. ah, ah, ah moom mu sëgg laa di aussi mais ay chèques yéen lañ ko yoreel foofu xaalis lañ ko yoreel dañ ko fay. am nañu ko xam ne da ko woon ne ko na nga ñëw ñu avance ay ay mu ne du ko dungu su ma ñëw ñu avance ma dañ may abat ci ko moom moom faible Macky Sall la yor ni muy def nii gars yi dama leen dafa mer non il a préféré mu sori Macky. dans tout ça na Mariam Sall xaritam. ah bon xaritam it rek da ko daan dimbale moom itam comme que lii am na ah taxaw na man dégg naa sax ñu naa nee dañ leen a liggéey xam nga xam nga yooyu aussi waaye nañ ko fay rek buñ ko fayee mu ñëw toog. ku ko ñaan mu jox la waaye du ma la fay doo doo dund te ba pare danga may jox loolu gu ko mën mënu ko. jërëjëf docteur kon bi beneen yoon. Ah. ñu bàyyi la nga tàggoog mbokk auditeurs yi. Macky Sall daal bu ñemee man mooy président waxuma ko na ma na ma invité wala na ma sarax bu ñemee na ma woo rek ñu toog jàkkaarloo man naa ko wax li ci biir yëpp naa ko wax ñi koy yàq xam na ko am na ñoom ñu ngi fa nekk leen neex mais booy bi toog nañu ni mu woo leen ñoom mu ne fay leen jàmbur xaalisam. ñu bañ xanaa moom président de la république il donne des ordres à des ministres ils ont refusé de faire ça Macky fi mu ne ñu ngi koy gën a accusé parce que moom moo ko nangu man du ma ñii def nit ne ko fayal fayal eh, kii xaalisam mu bañ ma la cay bàyyi kooku kooku mu yan nit lay def moom itam ah eh, dañ ñoo liggéey dañ ñoo dëddalee bi nag nee bu ñu ko fayee mu ñëw toog liggéey liggéeyam bu ñu ko fayal mu xaar yàlla dana changé fii daañu ko fay parce que ay kayit la.